Nabou dëgg la dëgg la dëgg la waaw man dama bëggoon sànni tuuti ci wax ji rek yow waroo woon wax dara. Mhm. yow doo tiit bul tiit bul ragal. Mhm. nee naa la yow kanam rek nga jëm. yow ku lay waxal dara danga koy bàyyeeg yàlla yàlla àtte leen. Mhm. ndax bu dee ci waajur jeexal nga ci dàq. bu dee waajuru jàmbur jeexal nga ci dàq sunu kërit muy kër ga nga doon dugg di fa sëy buuba nduur sama rakk jooju. ñaawoo fa. tey ba tey tey jii tey tey jii la tey. parce man. damay bëgg ba mu jeex tàkk bu may bàyyi damay bàyyi ba mu jeex tàkk mais yow yàlla moonu boole mm-hmm. yàlla moonu boole yax ya yax ya ca àllaaxiraa ñu boole mm-hmm. maa ak dee rek a ñuy dàqale dee rek a ñuy dàqale mm-hmm. lépp lu la na dal yàlla na dal man yaay sama xol yàlla ko def ma dal yàlla na ma dal man yaay sama xol yàllaa ko def waxuma la Seydou waxuma la dara mais mais Ndeye Seynabou Ndour. maa la fuuf man Ndeye Ndeye Ndeye Seynabou Ndour. léegi laa jógee sa kër démb la nu fay la fay laa boo xam ne àddina yëpp moom la ñuy waxtaan. Eh, maa la wax Ndeye Seynabou Ndour. sa kër sa kër mooy de sama deuxième kër bu ma génnee sama kër sa kër laa jëm. Hmm. wala sama kër yaay ñetti ñaari ñaari kër yooyu laa am. Eh, Ndeye bu Ndour. donc mosoo dugg ci lenn ta waxoo ma ko. lu hmm. ku ma ku lu ma metti metti na la. lu ma neex neex na la balaa ngaa dugg wala ngay def ko ak man kon jublu yàlla na ko yow yàlla jublu yàlla na nga sut sa baay fan sut sa ndey fan di ko ñaanal maris bi nga xam ne xa xataluma sama diggante ak yow maa ngi la koy ñaan di ñaan nag sama doom jooju di Zeyna yàlla na lu dund ba koy lang loolu rek laa lay ñaan def ko ma doo ko mën naa lu jeex na tàkk mais mais mais mais Seynabou Ndour ah, jërëjëf kontaan naa Nabou Nabou euh, ulsi euh, man ni ma lay déggee dafa mel ni yow Viviane nga nopp géej ma déggoo li ma la wax. Ah. dégg ko maa ngi moom ñooy bokk bàmmeel. Ah.